fàttalikoo keroog ba ñuy ubbi université bii faculté bi laa bëgg a wax mu nekkoon le 2 mai 2018 le 2 mai 2018 booba ñi ngi tàntoon fële fàttalikoo keroog ba ñuy ubbi université bii faculté bi laa bëgg a wax mu nekkoon le 2 mai 2018 le 2 mai 2018 booba ñi ngi tàntoon fële bi nga xamee ne jël na kàddu ba mu waxee ay cantam ki ngërëm ba noppi dafa waxoon baat ba suñ jamonoy tey bi man ndax maa marqué ndax dafa wax ne maam moor tabaxal lu la neex loo tabax dañ ko ràmb remplir loo tabax danañ ko feesal ak étudiant moom mi ma jural dara ci bi bi professeur amadou abdou sow ba suñ jamono ci tey jii may wax ak yéen moo nekk directeur de l' enseignement supérieur ci ministère de l' enseignement supérieur muy loo xam ne ni lu am solo la seen diplôme mi ngeen yore yépp yépp yépp yu daaw jéem yépp ak yu mel nii yëpp ci loxoom benn ci lañ ko sëñ loolu muy ba taxawaay bu am solo mu jàppale université bi jàppale bu am solo beneen bi si toppaat mu defaat benn acte boo xam ne acte noble laa koy tuddee ndax bu ñu delluwaatee le 2 octobre bala 3 octobre keroog bi ñuy ubbi léegi Muntada académie bi ñu defoon ci King Fahd te seqoon ko ak waa ISISCO ak waa UFIMI kere bi mu jëlee kàddu dafa wax lu am solo daf na sëñ Maam Mor am nga cas exceptionnel ndax yàlla dogal na ñetti directeur général yoo xam ne enseignement supérieur yu toftaloo ñu ngi nii bokk toog ndax moom dafa jëlee ci professeur Babacar Guèye nii professeur Babacar Guèye jëlee ci professeur Sankharé professeur Sankharé moom xam nga ne suñu mbokk la ndax ab arabi sala te moom moo sañ ci université bu mathématique Afrique 2020 yi kenn ko nekk xam na ne prix mathématique bi ci kii yi moom yi moo ko jëloon ca arabe yi saaraan noonu mu ma ne mat ma ne ko français yi noonu la kii ndax Maroc la génne jàng gi maanaam léegi acte boobu professeur Sow def dafa am solo lool ndax mënoon naa rek ne man maa yem ci ma fi doole maay directeur général waaye séddaale na maanaam ñi ko féetewoon woon te mooy léegi professeur Babacar Guèye ak professeur Samb bu defee ñoom ñaar li ma mujj tudd nag dafa yàlla dañoo liggéey dañoo liggéey ba retraite professeur Abdou Amadou Abdou Sow soog a ñëw aw leen waaye ñoom bi ñu retraité ñu ngi nii toog ci sama gannaaw ci gannaaw sëñ bi bi ñu retraité dañ ne du ñu bàyyi xam-xam ndax xam-xam la ñu xam bi. mu doy leen lool en tant que ak niveau ba leen yàlla teg ci xam-xam ñu ne ñoom it dañuy ñëw joo seen loxo ci liggéey boobu fi doolu ñoom ñaar ñi bokk nañ ci conseil académique bi nga xamee ne kon maanaam moom mooy la université Cheikh du Bamba yor ñu ngi ne bopp toog kon ñoo leen di ndokkeel te di leen sargal ci taxawaay bi nga xam ne taxaw nañ ko muy lu am tawfeex ñetti directeur général yu toftaloo yoo xam ne ni ñoom ñëpp maase nañu liggéeyandoo ak université Ahmadou Bamba yàlla defal leen tawfeex ñu bokk maase ñëw fii loolu kon te la ju rëy yoo xam ne yàlla teral na leen ko waaye sëriñ bi ndam la loo xam ne ba tey yàlla jagleel na la li ciy toppaat mooy ñu xamle ne bu dee Bambey am nañ fa ñaar fukki fukki diplôme yoo xam ne licence la ak yeneen yoo xam ne nii maanaam pare nañ ba noppi dara wax nañ ko léegi daal li ñu bëgg wax daal mooy remise de diplôme bii nii deuxième fois bii daal maanaam li nga xam ne mooy particularité bi mu am mooy mbooleem ñeenti centre yi nga xam ne moom la si jaamat si Ahmadou Bamba am kenn ku nekk participer nga am nga produire nga ab licencié muy loolu loo xam ne kon ñu ngi fiy soog a am kon sëriñ bi nee na mi ngi leen di dalal yéen ñëpp te di leen sant te di leen xamal ne yéen yéen ñi di ay doomam yéen ñi di ay sëtam yéen a moom ndaje mi bu jëlee kàddu lan leen war a wax da ngeen ko dégg ci kàddoom nee na mi ngi leen di fàttali ne ñii mu àndaloon liggéey bi muy professeur yi ñu fi lim ngeen bàyyi leen xel bu baax te xam ne am nañ ci ñoom yéen yërmande ndax yàlla dogal na diplôme yi ngeen am ci seen loxo la ko sunu borom jaarale ba mu àgg ci kon li ñuy fàttaliwaat tuuti rek mooy ñu xam ne université si Amadou Bamba ren jii la war a commencé ay master ndax am nañu autorisation boo xam ne nii master yàlla dogal na bi ñu lancé appel bi amoon nañu 82 candidats ñoo xam ne nii defal nañ leen léegi examen. écrire yàlla dogal na yi defal nañ leen examen oral fi mu toll li ci des rek mooy ñu xaar résultat yi résultat yi bu génnee bu ko defee léegi ñi nga xam ne ñoo ca jàng incha allah ñu war a dugg ci cycle master gannaaw boo xam ne moom cycle licence moom yàlla dogal na moom loola moom beneen wax la bu nekk suñu gannaaw waaye master lañu jëm gi fas yi ne gën a ñoqal du ñu fàtte yi ba tey doyen di la FASTEF professeur Moustapha Soxna nga xam ne lu jiitu lii moom ñëw na ànd ak équipe bu am solo ñëw fii nii toog wax ne moom li ko jaaxal wala lim li ko li ko yéem ci université Ahmadou Bamba bi fi ne ak dal bi fi ne ak fi ne ak ñàkk a wanewu bi fi ne bu am solo léegi wax loolu yàlla dogali mu mu dox ci loolu dox ca dox ca ba yàlla dogal ñu signé ak moom contrat ci le 23 novembre 2022 ca ca faculté FASTEF moom professeur Moustapha Soxna mii ngeen di gis it fi nii mu toogee dafay toogee ñaari entité dafay toogee comme doyen de la FASTEF waaye dafay toogee comme vice recteur bi nga xam ne kon mooy Amadou Ali Mbaye moo naroon a ñëw waaye mu empêché naroon a yebal wi kii yam ci topp coom waaye kooku it empêché waaye professeur Moustapha Soxna nii moo fi teewal professeur Amadou Ali Mbaye ak mboolem waa ICAT te xam ngeen ne yàlla dogal na it le 22 novembre bi ñu passé 2023 bii ñu génn sëñ Mamour àndoon na ak délégation bu ëpp ñeent fukki nit ak nangam ñu demoon ca ICRAD signé ak ñoom convention boo xam ne nii bu am solo la njëkk ñuy lu jiitu loolu fekkoon na ni ñu ko waxee woon léegi signé woon nañ le 23 novembre 2022 ak professeur Moustapha Soxna ca Faste le 22 novembre 2023 ñu signé ak ICRAD beneen convention ci teewaayu professeur Ali Mbaye ak équipe ba nga xam ne kon équipe bu bu bu yaatu la woon kon loolu lépp ñu xam ne kon professeur nii léegi taxawaay boobu ñu ngi sant ba tey inspecteur Ngom ñi nga xam ne teew na fi. ànd ak sëñ bi liggéey bi laaji Moussa Kouaté moom it teew na fi sëñ Sidi Makhtar ñoom ñëpp teew nañ fi sëñ Khassim Mbacke Murtada Seyd Abdul Karim Soley bi min Suuriya aydan hadara li sharikana fi hadhihi al-jalsa al-sharifa wal-qayyima Cheikh Ahmad Mbacke Pof ji moom it na fi di kenn ci waajuru dongo yi nga xam ne nii ñoom ñoo war a jël diplôme bi incha allah waaye di am taxawaay ci bi moom it teew na ak sëñ bi jataay bi. délégation Espagne Serigne Mbacke teew na fi ak ñi mu àndal Italie Malick Diop teew na fi. ñoom ñu suñu mbokk yi féete Italie Serigne Cheikh Aliou Mbacke moom it di am taxawaay ci dëkk bi moom it teewal fi sëriñ bi bokk ak yow jotaay bi ak sëriñ Mbay Jax ñu ngi rafetlu tam teewaayu Touba ca kanam ñoom it ñëw nañ ci ànd ak seen yitte ju mag duñ def ci bis bi ñoom it sëriñ bi teewal ñu ànd ak yow bis bi waaye dara jàmm bu baax sëriñ Ahmad Badawi Mbàkke moom si amoon Fadal rais bu jàmmal Seex Xadim moom it agsi na ci jotaay bi ñu ngi koy dalal jàmmam kon xam naa ngir njëkkanteeg waxtu yi dañuy daal di jox kàddu gi ki nga xam ne nii moom moo ne ci bopp étudiants yi ñu war a jox licence ci année bi incha allah Oustaz Mouhamadou Amoun Mbacké moo jël kàddu ci turu mbokki étudiants yi nga xam ne nii ñoom lañu war a jox seen diplôme tey ji kon Serigne Mouhamadou Mamoun dañuy taxaw daal mashkuran والصلاة والسلام على أسرف الأنبياء والمرسلين سعادة الرئيس ومؤسس جامعة الشيخ أحمد بامبا الشيخ ممر بك مرتضى معالي ممثل السلطة المركزية مدير التعليم العالي والبحث والابتكار سيد النائب رئيس جامعة الشيخ أنتجوب عميد كلية علوم وتقنيات التربية والتكوين سعادة عميد كلية العلوم الدينية والإنسانية والحضارات سيادة الأساتذة الكرام والدكاترة الأجلاء أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية التابعة لجامعة الشيخ أحمد بامبا بكلياتها العديدة المتنوعة أصحاب السمو والمعالي سيوخنا الفضلاء وضيوفنا الأعزاء زملاءنا الطلبة نحييكم جميعا بأحسن التحية وبأحسن التحية وأجملها وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد آه، فإن من الشرف بل الشرف كله أن أعبر باسمي وبالنيابة عن زملاء الطلبة الخريجين عن مدى فرحتنا وسرورنا بهذا اليوم التاريخي العظيم الذي سيظل التاريخ يذكره ويفتخر به سادتي ساداتي لا نستطيع الخوض في صميم الخطاب هذا إلا بعد الوقوف وقفة كلها الدعاء والتذكار لأساتذتنا المرحومين البروفيسور يوسف لو والدكتور مالك جو وزملائنا الطلبة المرحومين الذين كانوا معنا من البداية في رحاب هذه الجامعة ندعو الله سبحانه وتعالى أن يغمرهم برحمته وغفرانه أيها الحاضرون العظماء اسمحوا لنا أن نتخدم بالشكر الجزيل والاعتراف بالجميل لفضيلة الشيخ ممر مبكي مرتضى على ما بث له من جهود ميمونة في خدمة العلم وأهله كما أسدي أسمى آيات الشكر والامتنان إلى جامعة العريقة ممثلا في طاقمها الإداري وأعضاء الهيئة التدريسية البواسل من الأساتذة والدكاترة زملائنا الخريجين والخريجات أهنئكم باسمي وباسم الجامعة على هذه الثمرة التي تقتطفونها اليوم نتيجة جهدكم وصبركم في حقل التحصيل العلمي وفي الختام لا يفع لنا إلا أن نشكر جميع الحاضرين الكرماء على ما أنفقوا من أوقاتهم الثمينة للحضور على هذه الحفلة الميمونة وقد تشرفنا بحضوركم الكثير الكثير شكرا فشكرا ثم شكرا لكم والله يتولى جزاءكم وهو غير المجزي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته shukran jazilan sa Mouhamadul Mamoun abul ustaaz Mouhamadul Mamoun ala haadihi kalimati wajizati baliira xanaa nu fàttali rek ne moom dafa jël kàddu ci turu Itjaay Itjaay ñoo dajaloo jox ko seen kàddu mu jël ko jàllale ko ci façon bi nga xam ne jàllale ko ci muy kalima wajiza tafi bil xarat kon ñoom lay ndokkeel di ndokkeel nag mboolem Itjaay waaye di ndokkeel mbokk mi nga xam ne nii. moom moo jiitu ci promotion bi nga xam ne ni ñoo ne ci kulliyatu ulumul diine al insaaniya wa al hadaraat al insaaniya xam naa naxtasir an taalib Abdoulaye Sow kaana yu'allimu al qasida ba'da kalimati talaba walakin li diiqi al waqt نقتصر على هذه القصيدة ربما سنجد فرصة أخرى نعطيك سنعطيك فرصة أخرى لإلقاء هذه القصيدة كون عبد الله سعود سرين بي دا فا ديفون ген قصيدة بام سولو بو بون كوي واي خامنا كوم ني جتاي بي تيدي danay jéggal rek ñàkk yeneen jëm jamono danañ am occasion boo xam ne danañ mën a yokkaat xasida gi incha allah sëñ bi bokk nañ ñi fi teew wala boog ñi bëggoon a teew ñu Seex Sëy moom tuus yi xale yi sol wala boog yëre yi xale yi sol moom moo ko doon defar amoon na yéene teew xëy na dafa am gàtt kon sëñ moom tam ñu ngi koy jot lii ay kàddoom ambassadeur Fodé Seck nekkoon ancien ambassadeur bu Sénégal ci États-Unis d'Amérique nekkoon doyen des ambassadeurs africains moom itam sëriñ bi teew na fi ànd ak yow bis xam naa li topp ci jataay bi mooy ñaar ñu tuddoon léegi te amee dugg li ñëwoon ci muy al professeur Youssouf Youssouf Lo wala professeur Malick Diop ten jiitu ji ñu bëgg leen jox ay diplôme de reconnaissance yoo xam ne ni université Amadou Bamba moo leen koy jox ci rafetlu liggéey bi nga xam ne def nañ ko fi waaye tam mu nekk li jëmbal loo xam ne ni incha allah ilaa diin xam kon dañuy dal di jox kaddu gi doyen Pastef mu jël kaddu ñu doora jall ci li top kon doyen ñu lay jox kaddu gi fal yatafaddal mashkura asalaamaaleykum mbooloo mi Serigne bi daf may présenter comme doyen de la FASTEF euh, FASTEF moy faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation ex-école normale supérieure euh, ay fan yu néew ci ginnaaw li ñuy organiser fii dañ ko def FASTEF kilifa bu mag taxaw fa ne la ñuy wax nañ ko wax ci wolof buñ paree doo koy tënk ci tubaab nañ ko bàyyi di ko wax ci koy tënk ci wolof ngeen jéggal ma woon ma jéem koy wax ci wolof jéem koy tënk ci tubaab monsieur le président Serigne Mamour jërëjëf monsieur le je devrais dire messieurs les directeurs généraux de l'enseignement supérieur ndax fii yàlla dimbala ñu tey am na ñetti directeurs généraux monsieur Sow jërë ngeen jëf Mamadou Sangaré Ababacar Gueye di gërëm loo ak équipe pédagogique bi nga xamante ne ñoo fi nekk te ñoo ñu invité bala may sori ci kàddu gi ma wax lan mooy te ba nga xamante ne moom la ñu yàlla dénk faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation yàlla defa def mu am ñeenti mission noonu la ko assemblée nationale tëggee woon loolu moo nekk ci loi ba ca njëkk mooy dañ ne san du ñu former ñi nga xamante ne ñooy jàngalekat yi formation initiale ak formation continue ñu leen di jàngal ba pare teg di woy di leen tàggat fépp fuñ mën a nekk yokku ci ne képp koo xamante ne inspecteur la mooy ñu leen ñaras war a say ñu leen di tàggat te di leen jàngal ci njàng ñu ne nag loolu du ngeen cay yem da ngeen ci war a boore recherche ngeen di gëstu ndax la ngeen di jàng mën a leer loolu moo indi technologie ba ndax bu ñu amee faculté boo xamante ne dafay am science de l'éducation science de l'éducation boobu dañu war a xam lan mooy sabab ba ndax mu mën a leer ci bopp ñu koy jàngal mooy technologie bi nga xamante ne discours la sur les techniques au-delà de ça ñu ne bu ngeen defee recherche ba pare dafa laaj ngeen defar matériel didactique boo xam ne dañ ko mën a séddale loola daanaka war nay mën a leer ci ña fa nekk ñëpp même buñ leen ko waxuloon ñu wax ko mën a jëf dafa am loo xamante ne binduñu ko te ñu ñu ñu ñu koy laaj moo di ni buñ xoolee la nga xamante ne moom lañ bind ci fronton réew mi moo di ni dañ ne dafa nekk un peuple un but une loolu amul ci benn téere mathématique bu ñu ko bind binduñ ko ci benn téere histoire ak géographie wante moom la Serigne loo jëmmal léegi ba mooy wax lan mooy mandarga université kon ngeen xam ne nekkul ñun Pastef ñoo fi ñëw di uur li leen dimbalee mais dañ ñëw dimbali koo leen ndax liñ fiy jàngale ak liñ fiy jàngale ñu mën fee jàngee noonu la ñuy jàngale ñun. ndax mën a defar ak nit leneen li nga xamante ne moom laa cay mën a yokk ba ñu guddal mooy dafa am ñaari tànk yoo xamante ne dañu koy teg buñ nekk ci faculté bu mel noonu bu njëkk moom mooy problème la question de langue ki nga xamante ne moom la jàpp ci ñu ëpp xam-xam ci yu mel noonu mooy Vygotsky ab soviet daf ne li ngay wax ci sa làkk mu leer wax ko ci làkk làkku jàmbur mu leer dafay mel ni nu algèbre bi mel ci arithmétique dafay yóbbu xam-xam ci foo xamante ni niitukaay bu buñ amee foo xamante ne nañ fay jàngalee arabe noonu lañu fay jàngalee français te wolof ba leeree noonu mën nañ yaakaar ne niitukaay yi dana leer fii ñuy jàngalee loolu la war a jàngee fii la waaye duñ ko fi jàngalee. beneen ba ca toog am ñaari borom xam-xam yoo xamante ne ñu ràññeeku lañ ci problème mu njàngale jàngale ak problème science kenn ki ñu koy wax William Arthur kenn ki ñu koy wax Albert Einstein yàgg nañ ko dégg kenn ki daf ne lu mel ni ab université jàngal ci nit mu tëri lu war a mën a nekk la waaye lañ koy sant mooy xale ba mën a togg xam-xam ndax toggam xam-xam moom mooy liggéeyam ëllëg gis nañ ne fii xale yi yemuñ ci jàng tëri ko mais ñu ngay togg xam-xam ndax yàlla dimbale woon na ma dem Bambey gis lañ fay liggéey yàlla dimbale na ma ma fii dem naa également Dakar donc yàgg naa xool ak université nu ñuy liggéey donc toggam xam-xam moom xam ngeen waaye loolu William nee na du mën a nekk lu dul bu fekkente ne jàngalekat yi loolu feeñ na ci ñoom kan mooy jàngalekat bi nee na mooy ki nga xamante ne man ngay wax nga toppaat mu ne kooku day c'est un enseignant médiocre am na koo xam ne man lay démontrer mu ne il est bon waaye am na koo xamante ne jikkoom rek doy na jàngale loolu la fi sëriñ bi wax léegi njëkkee ko ci Malick Diop yal na ko yàlla xaaral jana wane ko si Yusufalu mooy ki nga xamante ne mu ngay jàngale ba ñëw taxaw ci place ba mooy jàngale yàlla jël yàlla moom ñooñu wan nañ lan mooy màndarga ay ndax la ñuy def la ñu gëm la te niitukaay nañ mel rek doy na jàngale dafa am kenn koo xam ne da koo màndargaal ca nam ko waxee Abdourahmane Lo daf na fii de waxuñ fi kenn ne ndax nii nga war a la nii nga war a mel dañ boole yi ñëpp yemale jàngaluñ fi kenn nañ mel ankañ sëñ bi nanga mel rek jàngale ndax loolu lañ war a jàng yow lu ñu war a jàng ci yow mooy ñu xam ni li nga nekk ku ko gis rek naw muy jàngale te li nga nekk doy na jàngale loolu noonu rek Là, vous avez un maître comme l'a dit il y a celui-là sur son comportement mérite d'être pris comme modèle et vous avez des enseignants qui méritent d'être pris comme modèle nous avons maintenant un grand maître il a le muy le président de la université bi ñun Pastef jox nañu pour ñëw jéem lay dimbali dañ ñëw dimbali ko la ndax jafe na ci jàngale lii nga xamante ne ñu ngi koy jàngalee ci Sénégal nga defar ci xale boo xamante ne man nay tar bu xam-xam te loolu ngeen di liggéey te loolu nag jar a jàng xale buy taal yoo xam na moo fi indi keroog bañ demee Bambey étudiant bi fii am nañ fi xale boo xamante ne keroog ba mbay ma ñore bañ ne ko da nga jaay am ci bénéfice dana déedéet duma ko jaay ndax dafa am tooke boo xamante ne mu ngi ca waxtu wi war a ma koy mën a jaay su ma ko jaayee nit ñi dañ koy lekk te su boobaa du baax ci ñoom te xam na ne prix bi ca la gënoon a élevé damay xaar ba waxtu wa nga xamante ne tooke ba jeex na ma war koy jaay su ko defee nag prix ba dana gën a wàññeeku wante loolu moo dal sama xel sama diggante sama biir bés bu ñu yàlla dimbale woon ba loolu feeñ fépp ci réew mi ba boo demee fekk ci avocat bi muy liggéeyee noonu nga fekk médecin ba mu mel noonu nga fekk jàngalekat bu mel noonu yaakaar naa ne li tax ñu naan ñu ngi jàngale diine dana feeñ ci ñëpp feeñ ci école école bi dina am sens. dafay dafa am ngànt moo tax ñëwul ci ndajeem tey moom ak gouverneur ñoom ñoo ma diggal ni mën a ñëw wutu leen ci ñëw gi ñu war a ñëw fii tey di am kontaante bu baax parce que dégg naa léegi professeur Moustapha Sokhna am na lu mu wax. ma respecté dogal boobu nga jël mooy ñu wax wolof bu ñu paree buñ ci ñambaar tuuti kàddu ci tubaab ñu def ko tàmbali ci di nuyu mbooloo mi fi tel yépp di ci jiital sëriñ Mamor Mbàkke Murtaxa Murtala ak euh, sëriñ Ahmadou Badara Mbàkke di leen ñaan kaddu yi nga xam ñu ko yëkkati muy kaddu nuyu ak kaddu ziar ñu jàllale ñu ko ci mboolem njabootu Serigne Touba yi te Serigne Mountakha jiitu ci di nuyu aussi bépp kilifa bi fi teew muy universitaire autorité académique autorité municipale ak bépp kilifa bi fi teew xam naa lim leen buñ ko naroon a def fii lañuy nekk ba timis

ndax man bi may jàng en 1988 dëkk bi ma nekkoon dafa amoon institut Al Azhar institut Al Azhar yaakaar naa Serigne Mourtala Mbacké moom moo ko daan moo ko doon promouvoir donc bu ñu nee moom il y a trente et années wéy juróom wu góor mi ngi doon liggéey ci lii tey mu toll fii dañu ko ci gërëm di ko ci sant loolu nag.

waaye li tax ma wax pare li mooy njàng du yegg du jeex da ngeen a am lu ngeen jot muy benn étape waaye da ngeen a war a li tax moo wax loolu mooy xam naa pour wax ko ci wolof dina jafe dama wax ne àdduna bi léegi ce monde est un monde de compétition où pour se faire une place au soleil il ne suffit plus d'être bon il faut être excellent xamul loolu luñ koy bu waxee ci wolof firee ci wolof mooy adduna bi léegi dafa dafa jaxasoo dafa bëri course de vitesse bu bu yàgg la bu rëy rëy ba nga xam ne léegi bu njëkk nit bu daan am certificat dañ koy wër pour mu am liggéey c'est-à-dire ki am certificat la ñuy di ko seet pour jox ko liggéey léegi nag mu dem ba nga xam ne nii nit ki day am ay diplôme yu kawe ba pare du mën a am liggéey donc ku amul diplôme bu kawe donc pour nga am liggéey mën na jafe xam naa peut euh, bi sax mën naa bañ nekk lu exact par ak li ma wax waaye daal njàng moom du jeex parce que religion rek yi nekk ci àdduna bi yëpp du ñu dugg ci détails yi waaye dañu digle jàng te jàng moom dafa nekk loo xam ne lu am solo la donc ñoo ngi leen ci gën a ñaax beneen point bi mooy félicité ñi nga xam ni comme on dit benn loxo du tàccu maam moor sëñ maam moor mun naa waaye bu amul lu fi nekk di ko saytu mbir mi du mën a yegsi donc ñoo leen ci gërëm ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk di saytu loolu di jàngal yi di occupé wu mm-hmm. seen jaar parce que le directeur général wax na ko léegi dama mosoon am ku ma daan dégg bu yàgg mu am la muy woy mu ni ku réew la mu yor moomu ko lu mu yàgg yàgg dina ko wàcc ko yàlla fort donc yar dafa am solo ci doomu donc nañu gën a yaru gën a bëgg li ñuy def gën a am correction gën a bëgg suñu réew parce que am na loo xam ku koy def moom du man ni bañ na mooy nuyu ñëpp gërëm ñëpp di wax ne xam naa kàddu yi duñ koy faral di bëgg a guddal ndax ndaje moom bu guddee rek dafay am ay loraange yu ñuy indi mani di Berlino è stata stravolta in cui ho